الحمد لله الذي جعل للمحسنين نصيبا من رحمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi jagleel ñi nga xamante ni ñooy ñiy rafetal ak yërmande ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la mooy wootekat bu mag bi ci dëgg yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njëbu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam baba keroog yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillah ñu ngi ko fas yéene amal ci bunt bi ñuy wax al ihsaan muy rafetal ahlul ihsaan fi dunia lahum maqamaati sharaf fi l axira ñi nga xamante ni dañuy rafetal fii ci àdduna ñoom de yàlla suñu borom mu ngi leen réserver ay maqaamaat ay grade yu kawe ëllëg yowm al axir al ixsaanu min al abd lahu thalaatha qanawaat rafetal nag buñ ko waxee dafa am rafetal bu jaam bi di rafetal digganteem ak boromam subhanahu wa taala ak rafetal bu jaam bi di def digganteem ak moroomu jaamam ba ci rafetal bu jaam bi di def ak yi nga xamante ni ñooy bàyyi ma yi rafetal bi ci njëkk mooy al ixsaanu al abd aw ixsaanu al abd maa xaaliqihi rafetal bi jàmbi di rafetal ci ki ko sàkk mu yàlla suñu borom subhanahu wa taala bi ñu ñëwee laaj ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu jibril laajoon ko ci yan ñooy ponki islaam yan mooy ponki iman bi mu ñëwee ba ci rafetal ne ko ana lan mooy al ihsaan yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daf ni ko an taabud allah ka annaka tara rafetal sa diggante ak sa borom de mooy lépp looy def rek nga jàpp ni yàlla mu ngi ni jàkk ci yow di la xool loolu mooy rafetal jëmale sa borom ginnaaw rafetal jëmale ci sa borom rafetal bi ci topp mooy ginnaaw bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxee ne wa qada rabbuka alla taabudu illa iyyah lam ca teg mooy wabil walidayni ihsaana mooy ginnaaw bi mu diglee moom yàlla suñu boroom ni bu ñu jaamu kenn ku dul moom lam ca teg mooy ñu rafetal jëmale suñuy wayjur ci lépp lu ñu la digal li fekk mu ngi dëppoog li yàlla digle nga nekk ca waaye lépp lu ñu la aaye tamit li fekk mu ngi dëppoog li yàlla aaye nee na nga bàyyi ko loolu de bokk na ci rafetal jëmale ci say wayjur nga nekk ci seeni wet ci saa suñ la soxlaa ci dimbal xel wala dimbalu kàttan waaye it bu dee ni dëddu nañ kenn jiitu la ci ñoom wala ñoom ñaar ñëpp jiitu la nee na nga leen di ñaanal dafa ñu nekk ndax dafa bokkoon ci sadaqa jaariya yonente na salaam jàngale woon mu ne ida ata ibnu aadama in qataa amluhu illa min salaas mu limoon ci ni waladun saalix yadu lahu doom ju baax joo xamante ni boo dëddoo moom moo lay ñaanal kon rafetal ci say wayjur yàlla mu ngi ko tudd ci bi ñuy dund nekk ak yow waaye tey bu ñu faatoo da ngay continuer di rafetal di jëmale ci ñoom ci di leen ñaanal ginnaaw rafetal ci say ñaari wayjur ni ci yàlla subhanahu wa taala teg mooy li borom subhanahu wa taala waxee ne wa iz axadna mithaqa bani israila la taabudu illa allah wa bil walidayni ihsana ñam ca teg mooy wa dil qurba wal yataama wal masakina wa qulu linnaasi xusna ci aay bii it borom subhanahu wa taala mu ngi wax ni ginnaaw bi mu diglee ñu jaamu ko moom dong te bañ kaa bokkaale kenn ñuy rafetal jëmale ci suñuy wayjur ñam ca teg mooy say dëkkandoo say jegeñaale nga rafetal jëmale ci ñoom lépp luy àq bu dox sa diggante ak ñoom nga fexe bañ cee tàbbi ngir ëllëg mu nekk luy dox sa digg sa diggante ak moom wal yataama ba ci tamit rafetal jëmale ci ñi nga xamante ni ñooy ay yetim yi mooy tut tànk yi seen i wayjur làqu nee na nga rafetal jëmale ci ñoom bare waa na ci jamono nag ñoo xamante ni daanaka bu seeni wayjur faatoo ñu nekk ay gone bàyyi leen ak alal ñoom ba ñuy màgg ba war a jot ci alal ji fekk ni alal ji tasaaru nañ ko ba bu yàgg loolu tamit dafa bokk ci li ñaawal jëmale ci yetiim yi kon rafetal jëmale ci yetiim yi wal masaakin ak way ñàkk yi tamit ñuy rafetal jëmale ci ñoom di leen dimbali dimbal gu àndul ak ngistal dimbal gu àndul ak ndigg dal mu ne tamit wa quulu linnaasi xusna ngay wax ci nit ñi wax ju rafet ba tey bokk na ci rafetal comme niñ ko waxee woon rafetal jëmale ci bàyyi ma yi as soxnaan si soo xamee ni moom taxawaalukat la woon sax da daan taxawaalu jigéen joo xamante ne da daan taxawaalu wante benn bis dafa ñëw taxaw ci benn teen gis xaj bi ñëw mar lool ñëw ci wetam mu gis ko yëlxas mu ngi mu ngi def noonu xaj di def bu maree waaye mu daal di jukki ci baag bi daal di summi xuffa mooy dàll bu mu soloon sotti ci ndox mi xaj bi daal ci naan ba mu màndi daal di dem kooku de ànd ak jëf yi mu daan def yépp ci njaaloo ak njaaloo ñu bokkee bokkee ci bàkkaar yi riire yi waaye loolu mu defar rafetal googu mu def jëmale ko ci xaj boobu noonu tax na borom subhaanahu wa taala jéggal ko ay bàkkaaram ba tey bokk na ci rafetal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna allaha kataba al ihsan ala kulli cheyin fa ida qadaltum fa ahsinu al qitla wa ida dabaxtum fa ahsinu dabaxa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne rafetal de mu ngi egg ba ci bu fekkee da ngaa tiim lii la yàlla terale li ñu yàlla terale ñu doomu aadama yi mooy bàyyi ma yi nga war koo lewetal mooy nga war koo rendi nee na na nga waajal la nga koy rendee muy paaka bi ba mu ñëw ba nga nga mën koo gaaw a noppal moom mi ngay rendi ndax dafa metti waaye nee na boo koy rendi it bul rendi ba taqale bopp bi ak yaram bi nee na boo ko defee ñaawal nga na nga ko rendi ba taqale put bi nga xamante ni moom moo doon téye ak noom bu ko defee ndax nga daal koy bàyyi nee na loolu rafetal la jëmale ci bàyyi may aqulu ma samitum wastaghfirullah li wa lakum wa li saari muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala julli di salmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw di wax ci ngëne li nga xamante ni lii di rafetal dina ko am awalan almuxsin yakunu fi maayati allahi azza wa jalla ta'yidan wa nusratan wa tawfiqan wa man kana wa man kana allahu maahu fa innahu la yaxaafu ba'san wala rahaqa wa qala subhanahu wa taala inna allaha maa alladina ittaqaw walladina hum muxsinuun ki nga xamante ne dafay rafetal yii mu ngi koy xaar bi ci njëkk mooy yàlla day ànd ak kii rafetal yàlla ànd ak yow mooy yàlla mooy doon sa force mooy ki lay kattanal mooy ki lay musal ba amul lenn loo xamante ni luy jóge ci àll ba la muy lu ñaaw luy dal sa kaw yàlla moo lay defal jàmm tamit moo lay defal tawfiq yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi koy coxal mu ni inna allaha maa alladina taqaw man yàlla maa ngi ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ñi ma ragal walladina hum muhsinuun ak ñi nga xamante ni dañuy rafetal kon gis nga rafetal rek ci niñ ko waxee léegi day yóbbe ci nit ki mu ànd ak borom subhaanahu wa taala ci lépp lu muy def saaniyan al ixsaanu yajcaluka fi daairati rahmati rabbaaniya wa kullama axsanta zdatta qariban minha ki nga xamante ne day rafetal na xam ni jamono jëmi rafetal ma ngay gën a jege suñu borom subhaanahu wa taala ci yërmandeem ga ndax inna allaha inna rahmatallahi qaribu min al muhsinin la yàlla suñu borom wax nee na ñi nga xamante ni dañuy rafetal nee na nañu xam ne jamono bi ñuy rafetal ñu ngi may jege man yàlla suñu borom ibnul qayim wax ni miftaaxu xusuri rahma al ixsaanu fi ibadati al xaaliq wa saayu fi nafi abidi nee na lii di yërmande suñu boroom ngir nga am ko nee na mi ngi tàmbalee ci ngay ngay rafetal jëmale ci borom bi nga xamante ni mooy ki la sàkk nee na mooy miftaax bi mooy bunt bi ngay njëkk a tijj bi bunt bi ngay tijj muy egg ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala nee na mooy rafetal jëmale ci moom mi la sàkk wa saayi fi nafi abidihi ak di dox jëm ci li nga xamante ni mooy liy jëriñ nit ñi maanaam ngay doon kuy jëriñ nit ñi wa salisan ba tey ci al ihsaanu fi ibadatil xaaliq rafetal ci jëmale si borom bi subhanahu wa taala yamnaw anil maasi njëriñ li mu lay jural mooy daf lay tere def lépp loo xamante ni luy jur bàkkaar la ndax saay booy jug di defi ji bàkkaar mooy li lay jatan di la wax ni yàlla ngi lay gis ci li nga bëgg a def bu ko defee nga daldi bàyyi dellu tuub jéggalaat suñu borom subhanahu wa taala mu jéggal la li nga xamante ni amoon nga sax intention pour def ko waaye jotu koo def nga xam nga ni yàlla suñu borom lépp loo def mu ngi lay xool bokk na ba tey ci rafetal ci jëmale ci nit ñi lim lay jural mooy yow miy rafetal ki nga xamante ne dafa am intention wu def lu ñaaw jëmale ko ci yow nee na na nga jàpp ne kooku loolu ci moom la nekk waaye yow li nga xamante ne mooy li ne ci yow mooy nga xam ne lépp looy def yàlla mu ngi lay gis te da nga war di rafetal jëmale ci yàlla rafetal jëmale ci nit ñi nee na kee jël intention wu def lu ñaaw jëmale ci yow nee na na nga ko delloo yow na nga ko fay lu rafet idfa billati hiya ahsan ndax walladi nafsuhu bi gayri jamal laa yara fi wujudi shay'an jamila ki nga xamante ne moom bu la gisee nga taxaw sax ak garab mu jàpp ne jigéen nga taxawal kooku li ne ci moom mooy ni moom moom saa su nekk rek taxaw ak jigéen moom mooy mooy ay yitteem ki nga xamante ne daf laa gis nga ci anam goo xamante ni moom moom loolu lay def ci lu ñaaw bu la ca gisee rek moom loolu lay jàpp ne yow loolu ngay def kon ku mel noonu neen booy jëflante ak moom la muy jóge ca moom di ñëw ci yow na doon lu ñaaw luy jóge ci moom di jëm si yow waaye boo koy delloo na ngay am saa su nekk njort lu rafet di jëmale ci moom lu mooy rafetal jëmale ci nga xamante ni moom mooy xalaate noonu moo tax yàlla suñu borom wax ni wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan na ngay delloo saa su nekk lii di jëf ju rafet jëmale ci kiy ñaawul jëmale ci yow ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله